salaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu dalal fii kii di Gaston Mbengue mais en tant que pas en tant que promoteur en tant que observateur seen politique bi. Euh, mu nekk ci grand soutien du président de la république ñëpp ràññee ko ci mos bu kenn tamit. Mhm. Euh, ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal. ñu bàyyi la nga nuyoo mbokku Sénégalais maa ngi nuyu seen euh, auditeurs yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu vraiment politiciens yi parce que ci jamonoy politique la nekk. politiciens yi tey ndakaaru kenn mënu fee dox mais que d'ailleurs à l'intérieur du Sénégal baare nañu tali yëpp ku ci nekk yi wane sa bopp ku ci nekk bëgg a xaw ma dañu bëgg a nax population yi mais daal ñu ngi ci seen manin. Hmm. campagne la seen normal que ñu wàcc ci ah. mais en fin de compte euh, da ngay xool ba ci yàgg sax dafay nekk lu ridicule hmm. parce que nit ki nga xam ne daawoo ko faale. campagne jot à une semaine dix jours quinze jours ngay. Euh, wàcc ci mbedd mi nga koy jéem a charmer man <laughs> yooyu man am na yoo xam ne. Euh, politiciens yi mel charme yoo xam ne man mënu man Gaston mënu ma ko. <laughs> kon mënoo def politique parce que. quand même campagne électorale parce que man lu ma gëmul mënu ma ko incarner. waaw parce que gis nañu ñuy wàcc di dawal vélo. ñi di saaf gerte caaf di fekk ñuy attaaya nga toog seen wet di naanandoo attaaya ak. di te fekk gëmuñ ci dara yàlla xam na ko. xam nga yooyu aussi euh, bon voilà. Hmm. Euh, na naturel quoi. na naturel voilà bañ a hmm. naxaate. naturel d' accord président de la république euh, euh, président Macky Sall ah déjà hmm. bëri na ci gox yoo xam ne jàpp nañ ne choix yu mu fa def euh, dafa des c' est le cas à Ziguinchor Louga déjà yow foofu nga nekk ta grande sœur là-bas mooy soxna. Aminata Mbengue Aminata Ndiaye. Hmm. Euh, yaa aussi Moustapha Diop bi nga xam ne moom la benn bokk yaakaar tabb wala président de la république tànn ko. Mhm. nan ngeen di dundee loolu foofu ci biir ci biir Louga. waa d' abord Kandé xam nga nit ñi léeg-léeg dañuy jaawale ci li ma yaakaar. Mhm. xam nga président Macky Sall moom la Sénégal tànn majorité bi bokk à plus de cinquante huit pour cent. Mhm. te tey xëy na su ko su ñëwaatoon sax mën naa am lu ëpp loolu man ci sama yaakaar parce que man moom laa faral moom laa bëgg muy gagné. mais cela la veut pas dire que Macky Sall dafa war a euh, tëj bëtu nit ñi di leen tànnal mën na orienté nag. Hmm. parce que moom mooy chefu APR moom mooy chefu Benno Bokk Yaakaar. Hmm. moom Sénégal gépp amee na leen njukkal parce que Sénégal ko fal. Hmm. mën na it gis nit yaakaar ko orienté ko. daa di orienté waa Benno Bokk Yaakaar ne leen kii day man moo nekk sama xel ragal naa ni war naa mën a jël affaire bi mais loolu orientation rek la Macky sàll nit la ku dul juum amul yàlla rek ay dul juum ci commune yi mu tànn yëpp la preuve am na ci ñoo xam ne dana dem def liste parallèle mhm. ñi mu tànn ñëpp su sañoon ñooy gën su sañoon Macky Sall su sañoon ñi mu tànn ñooy gën. ñu am unanimité. ñu day am unanimité. Hmm. mais nag mën naa am mu tànn koo xam ni ca gox ba parce que kii affaire collectivité local la affaire gox la lu affaire nation bi affaire nation bi nation bi moom la ñu tànn mais affaire gox la ñuy la dund ñoom ñoo ko xam gox yi li ñuy dund ñoom ñoo ko xam donc ñi mu tànn nag trois quarts yi xëy na baax na mais ci un quart bi. wala un tiers bi am na ñoo xam ne baaxunu hmm? waaw am na ci ñoo xam ne baaxul man soo bëggee dégg-dëgg fi nga xam ne moom laa gën a maîtriser muy Louga di sama dëkk ma dëkk fa te kenn mënu fa def lu ma lu ma àndul man hmm. man Gaston moo tax du ma politique parce que je pour Louga Moustapha Diop la ñu tànnal Moustapha Diop ne fait pas l'unanimité à Louga ne fait même pas le tiers de Louga moom rek ak Louga du fa am dara mais Macky foofu mën nañ ko tuddee njuumte même man mii di Gaston ngi nekkoon président Ndiambour njuumte googu dal na ma ndax man maa jël équipe bu Ndiambour de Louga jox teg ko ci loxo Moussa Diop Louga gépp contre bañ. Hmm? man nax naxanteeg ñoom leen kii xale la maire yi ma a jaar Louga yëpp ku ci ne mas ngaa nekk président Ndiambour muy bu Bouna Ndiaye di Dabi Diagne di Maguette Diouf di Mañang Faye ñooñu ñëpp ku ci ne amee nga Ndiambour. te lu ne leen njaamur jaraloon Moussa Diop waa Louga yëpp bañ ma jox ko njaamur mu ngi nii tey njaamur jël ndàdda ci championnat bi te Louga nag la le dénominateur commun de la ville de Louga c'est le njaamur la ZAC njaamur ku ko bëgg a yàq yàqu nga da ngay yàqaale sa bopp. Mm-hmm. te loolu Moussa Diop boobu def na ko. Mm-hmm. man sama doom la sama doom la ma sa doon mais doom ju yàq dan koy xamal ni day yàq parce que lii du affaire Gaston. du affaire Macky Sall du affaire keneen affaire waa Louga la du dugg Louga du ñëw Louga jamais de la vie. kon jàpp nga ne Aminata même réunion même réunion njaamur yi. du ñëw fii la koy defee teeru bi. du ko defee Louga laajal waa Louga du ko defee Louga du fa dem. nit ba soxla monsieur Macky Sall président de la République nga xam ne man moom laa àndal désigné ko bon c'est ah, avec juste raison c'est un ministre c'est le maire de Louga. c'est c'est le président dafa taxaw ni. Euh, su sañoon day reconduiraat maire yi. waaw ko am maire na man daa ñu dimbali ko. mu am a est-ce que loolu jaadul loon tamit Aminata Mbengue Ndiaye. dimbali ko non non mu am beneen mandat. non non non non mais attends aminta Mbengue Ndiaye nag politicienne la yàgg na ci dafa amee parti et que waa Louga dañ ko nawloo mu nawloo leen Moustapha jóob la mu def tey Louga mi am na ci bëri ñoo xam ne tey su fekkoon ne mu ku mel ni Moustapha jóob la ñu am duñ ci ànd. Mhm. am na loo xam ne kenn mënu koo def loo Macky Sall kenn mënu ko tey ban ko bëggee le président Macky Sall ban ko bëggee tuutal ca PDS dafa bàyyi génn bàyyi leen ak lépp parce que yenn yi nag affaire dret la affaire ngor la Aminata Mbengue est à cent pour cent avec Macky Sall Aminata Mbengue Ousmane Tanor Dieng ba mu yàlla na ko yàlla yërëm ba mu riti sanwee pour dem ci bokk ci affaire bokk yi Aminata Mbengue moo ko dox hmm. ba teg ko ci loxo Macky Sall le président Macky Sall xam na loolu xam na ni Aminata Mbengue est très loyal ak moom ci elle restera toujours loyal mais nag Louga beneen affaire la. waaw du question nation. du affaire nation du affaire dara beneen affaire la Louga. c'est des élections tey Louga gépp ñu nga fay même Thierno Bachir la khalife général des Talen nga xam ni papa ci Macky Sall di papa ci ñun sunu papa dénkoon nu ko reconnaître na les réalités. Hmm, mais quand même tooy lenqeem ma nga ne ànd ak Mamour Diallo. mais fidélité bi quand même mënoon na ko wóyal rek. fidélité c'est-à-dire fidélité c'est-à-dire. maanaam président Macky Sall. non la non moom la àndal. président am na beneen choix. non non par rapport loolu du fidélité. waaw ñun on restera toujours fidèle au président Macky Sall. man tey président Macky Sall. des xam ne président moo koy xëccoo may ma tudd rek ma parce dafa leer. Mhm. on sera toujours fidèle au président Macky lu jëm ci nation bi tey su doon am su doon bëggoon dixième mandat sax man ànd naa ci ak moom damay koy damay damay ciy ànd ak moom aveuglément hmm. mais nag affaire gox affaire gox la Macky Sall le président Macky Sall mën na orienté hmm. mais ci orientation rek la mën a yem d'accord mais su fekkee ni comme nous orienter ne fait pas le poids hmm. Macky le président Macky nu ne nous pas ni nu par force def leen lii d'autant plus que Mamour Diallo mi nu dem Mamour Diallo génnul ci Macky ba mu for organisé ba mu dem taxawalee mouvement am dolli yi la ko tuddee keroog Boun Abdallah Dionne premier ministre moo ànd ak ministre yu bëri ñoom Mbaye Ndiaye ñoo ñoom Omar ñoom ñëpp ñu dem installé ko à Louga donc il faut pas Mamour jàlloo parce que coow yu bari na coow li ko ko fi indi Sonko Sonko ñëpp lay jiiñ sàcc te moom kenn xamul lan la mais loolu affaire politique affaire yàq der parce que tudd nañu Mamour Diallo ci kii justice setal na ko ba mu set wecc mm. donc il faut pas que ñu bëgg mel nii parce que tey un Moustapha Diop su baaxoon dana nekk Louga di wax ni Sonko wax na dëgg. Hmm. Mamour Diallo sàcc la. ca patron Macky Sall. loolu lay wax fale Louga ca Louga loolu la wax. ca patron Macky xam ni loolu du dëgg justice bi xam ni loolu du dëgg waa APR yëpp xam ni loolu du dëgg moom mu dem par pour bëgg benn poste maire rek tax mu ànd ak Sonko ci ci circonstance boobu ni Sonko li mu wax dëgg la moom moo ko wax ca Louga. <laughs> doy na waar yaa kooku doy na waar. <laughs> na léegi Sonko moom nga tudd déjà. mu ah, ngi woon tournée ci ci. mi ngi mi ngi ji ñëpp sàcc. barki dem Lat Diop la fi ji ñëpp ñoom Aliou Sall. moom laa doon laaj déjà ah, ban yooyu nag daf ko nee na nee na nee na na bu faloo da leen di tëj. waaw mais moom tëkku na Aliou Sall moom est-ce que kon kenn du ko tëj. parce que moom itam leen koy jiiñ bari na. leen koy jiiñ ci affaire mërs mi ngi nii taxaw ni coj leen ko jiiñ ñamuy jiiñ ñoom Mamour jàlloo ñoom doon jiiñ ñoom Mamour Diallo génne nañ fi ay ay euh, contrat yu mu amoon ak ay héritier suuf soosu muy wax donc jiiñante la rek te politique moo yo moom yooyu dafa war a xew yi ci politique di tabante dëmm di yàqante sa moroom <laughs> yooyu moo war a jeex ci politique parce que fii su dee yàq der ku ne mën ngaa yàq sa der morom su dee sos ku ne mën ngaa sosal sa morom moo tax bi boo ñuy ñaan yàlla rek di set wecc am na solo euh, déjà euh, campagne bi tamit am nañ ci tuuti violence ci yenn gox yee waaw lu ëpp waa ben bokk yaakaar la ñuy tuumal da ñoom ñëpp la ñuy tuumal. Hmm. affaire yu ñàkk xel la ak ñàkk xalaat ak ñàkk gëm sa bopp parce que violence lu ko fi jar yow soo jamee nit wala nga rey nit sa mbokk nga rey wala sa mbokk xarit mais politique bi jaru ko. Hmm. te ñi ciy reyante kenn du ci falu benn nit day falu ci nit kooku su faloo comme échelle boo boo jàpp di yéeg ba ca kaw garab ga ba mu bi mu daanu kenn du la fa fekk. Hmm. ñoom rek ñi bëgg a falu ñëpp ak ñi tax nit ñi def violence. ñoom danoo ñàkk fayda man kenn du ma gënumaa liggéey ndey du ma ko nangu kay dem di def violence pour kenn xanaa nga bett ma jam ma mais man kenn jarul ma xeex d'accord man lu may défendre ci ay idée laa koy défendre wala ci wax dëgg te ñun ñëpp danoo war di wax dëgg parce que Sénégal benn bopp la ñun ñëpp benn lanu hmm. jarul ñuy tamante dëmm jarul ñuy jiñante ay sàcc jarul ñuy waxante wax ju bon loo xam ne ëllëg ak si biir su soppeeku woon dem euh, fekk si la ci parti ko la Moussa jóob bi nekkoon dakaar dem dikk ba mu nekkee ca Macky Sall lu baax lu ne la wax ba mu fa jógee mi Dias mu ko yóbbu woon euh, tribunal danoo mujj ànd jubo hmm. ànd ak Sonko. ku nekk wax nga xam ni kenn gëmu ci dara. Hmm. donc bu leen nit ñi topp nit ñi nañ dellu seen xel ubbi seen xel askan wi nag gox yi nag moom affaire gox la ku ci ne yaa xam looy looy dundee. ku ci ne laa xam yaa xam li ngay wéyee yaa xam sa matt yi lal yaa ko xam. Hmm. président Macky Sall li mu yenu bari na mi ngi koy liggéey Sénégal ko fal mi ngi liggéey Sénégal liggéey bu mucc ayib mi ngi liggéey liggéey boo xam ne suñu demee di si fin avant mille 2024 da nga gis ni liggéey na dëkk bi su ko yàlla dimbali ba chantier yëpp pare. d'accord mais nag li def suñu gox yi nag. na na ko bàyyi na ko waa gox yi gérer seen bopp. seen bopp <laughs> bon pour fu ñuy tëjee inauguré nañ terre bi man ñam dugg naa fa. Mhm. Euh, ñu bëri jàpp nañ na ba léegi du priorité te gis na quand même moo ngi defagum jéego fu mu toll nii. Euh, ban jàngat nga ci am. rapide mais kooku lu baax la terre bi dafa baax gis nga président Macky Sall chantier yi mu teg yëpp lu baax la te ku yàgg a tukki yàgg a gis man dem naa Chine Japon dem naa États-Unis dem naa France dem naa partout mais yu mel nii mooy doxal réew ya léegi. Hmm. donc nit ñi koy leen war a bàyyi bëgg a jiital politique bëgg yàq der cay respecté ay ay instructions yi Macky parce que dem ba nekk ministre wala nekk ca kaw su la Macky Sall joxe instruction sax doo ko respecté man xam naa ci dara. man am naa demele ak ñoom. boo xam ni du demele sax mais loo xam ni sama yëfu bopp la président Macky Sall du bëgguma ko sax di wax. parce que président Macky Sall xëy na moom dafa na ni sax lin ma lin li ma war a réglé ak ñoom réglé nan ko mais réglé wuñ ko réglé wuñ ko te pourtant président Macky Sall devant moi a donné des instructions pour te dire que ñoom kon seen bopp wala ki leen arrangé wala kii reere seen kër wala yooyu la ñu fonk mais man ba may jógee Louga dama ñëw indaale wu fi dara liggéey ba mel nii ma mel. di ñaan yàlla yàlla sàmm ma. Hmm. tey lu ma nit xañ itam mën naa koo bàyyeeg yow mën naa laa bàyyeeg yàlla. dëgg nga xam ne àddina bi euh, dëgg rek ay mujj. Hmm. kon ñi Macky Sall dénk sama mbir mbiru keneen mbiru yeneen nga xam ne mooy président bi moom rek la ñu fal faluñu keneen nan ko jéema a respecté cay jël téléphone nit ñi. Hmm. parce que man 49 laa judd j'ai 72 ans du xale bu ndaw. ñoom ñëpp ba may judd wala ba may wut xaalis kenn nekku fi donc du ma bafouer sama dignité pour di topp nit di ko téléphoné mooy bañ jël. Mhm. wala di euh, te tëdd ci sama yëf du la faale wala di la sàgganal mel ni ku la iñaane mel ni ku la ñee. Mhm. en fin de compte damay wax ni ñii xëy na danoo ñee Gaston danoo defe ne Gaston multimilliardaire et pourtant ñi nu fabriqué ñoom daf leen milliardaire. Mhm. su seen pexe juboon tey le président Macky Sall du fi toog. du fi c'est fi toog. waa benn bokk man li ciy rey sama nag man la ñuy xeex. waa Benno nee nañu loi homosexualité. loi <laughs> loi boobu di criminaliser homosexualité. kenn di ko voté ci réew mi. ah waaw xëy na ñoom ñoo xam li tax mais man de su ma fekkoon ni toog naa fa di wote dinaa ko wote man. jeex na tak ñoo lay gërëm di la jaajëfal jërëjëf Kandé. merci beaucoup ah ba beneen yoon incha allah. jërëjëf <laughs>